billahi alaaji waroon fee xam alaaji naan wax yëpp waxuma ko ab baadoola nga kuy wër baadoola ba egg ci yow bu yeboo kuy lekk baadoola rek bu la gisee na ngaang yow yow maa la ko wax ma ni lekk katu baadoo la bu la gisee ñaan na ŋaang te xam ne boo ñëwee ni sarax ci gémmiñ te war naa la amel junni nga nga nga may toogee grand place fekk ma la grand place fekk ma fii ci bopp koñ bi maa ngi sa junni nii ci sa ci ci ci sama poos ñu ma jël sa xaalis rek junni baa ngi nii boo ñëwee ma jox la maa ngi taxaw ci bopp koñ bi waaw taxaw lu waaw baax na koo ci amel kii rek mu inconnu. يا عيد koy fekk nga place. allo. ah père. na nga bien. alhamdulilah. alhamdulilah. naka mu. maa ngi sant yàlla bu baax. ah la. ah waaw. dañoo xamante ma ak yow <laughs> ma ak yow dañoo xamante. père ah. da nga maa xam. looy wër. man dafa am ku may xaar lan la woon. non xaaroo kenn. xaaruma kenn. waaw boo yow lan la nag. versé lu may versé da nga di juuti am yow ab chauffeur nga wala lan nga ba ma lay versé. yow sàcc nga. ah bon. da nga forfait léegi gis naa ko. joxal rek ma dem sama si yëf war eh, kalpe jaabur nga fi for joxal verse sama yëf war dama koy for ah, kon xaaral ñu woo xaar moo police mu ñëw benn yoon rek li ne ci kalpe bi li laa wax eh booy liggéeyoo ci yoo dee un million cëru di wax téen waay yow koo ci ni neex na rek mu ne na fi dàqe ah non fee laa taxaw di la waay demal rek liggéeyoo cëru nga demal ah, demal rek junnee ngoo ñu kit ma waa ji ñëwee ma joxi ko fii ay booy fii loo def ñu ngi la teg bët acere kalpem bi daa gis lan la bowaat di da xanaa ab électricien la doo ko di xanaa ab électricité la loolu ah, wala tey yàlla ñeme lu ñemewu loolu mënumaa def lu ni mel ko juróom ci du ñaan billahi alaaj borom alaaj ko naan baye ko daw waxtu eh eh eh eh yaa ko góorgóorlu